mbokk jullit yi daje ci biir baas bi ñu ngi leen di nuyu di ko teg ci nuyoo suñu rakk xalifaloo loo kilifa yi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ñii di ay sëriñ ñii di ay wayjur ñii di ay rakk ñii di ay mag ñépp ñu ngi leen di nuyu ah di am mbégte bu baax a baax ci fekk gi nu fekke jotaay bii ndax dañ ne jotaay bu mel nii loo fi yàgg lu ne bénéfice la ci yow ndax sa corona bi nga xamante ne moo doon dox ci sa dund dañ koy arrêté ba ba nga fi jóge te jotaay bu mel nii boo ci nekkee boo yëgeeg boo yëgul yàlla yebal na ay malaayka nu ñëw wàccee seeni laaf yi yiw di la yiir li fi mi ngi yaa ngi fi ci biir jotaay bi bu mel nii kon nag ñu sant ci jotaay bi teewaay bi nga xamante ne teew nañ ko fi ñun amuñu benn kàddu boo xamante ne moom lañ fiy wax xanaa kàddu ñaan la rek ndax xalifa dafa yéwén rek dañ ne li gën a jafe mooy tabe ci daraja te moom loolu la ko yàlla defal la daloon ñaarim ñaay danoo dem ci sëñ bi am luñ fay uti sëñ bi ne leen lii day mi ngi fi waaye ki ma koy jox ci yéen dafay fekk tànk ki gën a dëkk ki gën a doyee ci dëkk bi mu dem mar ko su ko maree bu ñëwee danaa ko jox daraja bi moo ngeen di wut kenn ki yendoo wër dëkk bi mel ne man topp ñi sol yére yu bon ak ñi amul daraak ñi nekk ci seen yéeg kenn ku ne mu dem fekk la fa nga fekk mar sa tànk waa ji moom mel ne xalifa génn rek mar tànkam toog ci bunt bi ba ngoon jot ñuy ñëw waa ji laaj kenn ki kenn ki na ko man de fu ne wër naa fa dof bu ma gis ku sori sagar ku ma gis ku doyee di ku ma gis ku ñàkk faayda ku ma gis mar naa tànkam kon yaakaar naa ne man maa koy jot mu ne xalifa yow loo def xalifa ne ko man de damaa génn ci sa buntu néeg bi laa toog mar sama tànk xam ne jaamu yàlla yëpp maa ci gën a doyee ji maa ci gën a xeebu mu ne ko yaa moom bi jëlal cër bi kon nag ku bëgg ñu màggal la da ngay màggal nit ñi ku bëgguñu defal la da defal nit ñi ndax yàlla nee na àddina du yàgg-yàgg ba ma wàcc lu may def lu ne dama koy jaare ci ay nit andil leen ko alquran sax waxi yàlla la waaye daf ko jaarale ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu daje fi nag te doxu mbokk day yokk fan doxu mbokk day tax a gudd fan soo demee ci téere bu ñuy wax tanbihul xaafiliin ma ngi koy nettali benn waay boo xamante ne demoon na ba ñetti fan moo des ci dundam ñetti fan yooyu yàlla xéer ko ci mu dox ci mbokk ñetti fan yépp benn bi mu seeti mbokkam ci benn dëkk beneen bi mu dem ci beneen dëkk beneen bi mu dem ci beneen dëkk ñetti fan yooyu yépp mu mottali ko ci seeti mbokk ci barkeb seeti mbokk ak yiwu seeti mbokk ci la ko yàlla maye ñetti fan yeneen ñu yokkal ko ko fukki at dundam fanweeri at yokkuwaat am benn nit yàlla boo xam ne dafa ñëw ci dëkk bi di def waxtaan yàlla xamal ko ne ko ci sa biir mbooloo am na waa waaji fi nekk joo xam ne ñetti fan moo des ci dundam bu déwénee booy des ci dëkk bi doo ko fekk nit yàlla gi def waxtaanam dem ñibbi ci déwén si mu ñëw gisaat waa ji toog ci kanamam bi mu toogee ci kanamam comme moom nit yàlla la te yàlla may na leen luñ bëggal xam danañ ko xam mu def ay pexeem ba laaj ne kii kat boo fiy jóge daaw da ngeen mën a woon ñetti fan moo des ci dundam moom la ma malakal mawti xamaloon te tey fekkaat naa ko fi ren may laaj ba xam lu ko may lii. ci la ko wax yàlla waxe malakal mawti wax ko directement ne ko bi mu fi jógee dafa am ñetti fan yi ko desewoon ci dundam da koo dox mbokk ci barkeb doxu mbokk ak yiw doxa mbokk ci laa ko mayee benn fan bu ne ma fulal ko dundam fukki at dana dundaat fanweeri moo tax yàlla wax ci alxuraan ne yamxullaahu maa yasha wa yusabbit wa indahu umul kitaab bu la neexee it nga ne wa yusbit yàlla am na umul kitaab muy lawhul mahfuus lu mu fa xas bind du ko sensé waaye am na alwaahul mahwi wal isbaat foofa alwaahul mahwi lu mu fa bind mën na ko sensé moo tax nit dara war a dund fukki at def itte ak mbaax dund juróom-benn fukki at waaye nit dara war a dund juróom-benn fukki at bon sonal nit ñi. bon yàqu nar a lëjal nit ñi dund fukki at dee yàlla nañ ci yàlla musal kon nag ngeen nekk ci doxu mbokk yàlla na ko yàlla def li muy waxtaane nag muy yaru xale yi andi na ci loo xam ne kenn mënut cee teg dara boo nee xale danga nga koo war a fexe mu gëm jeex na nga fexe mu jàng jeex na nga fexe defar jukkoom ñett yi bu baaxee lépp baax na nit ki bu amee ngëm yàlla léppam mat na ndax boo gëmee yàlla jaamu yàlla te nag boo jaamoo yàlla yàlla fexe nit ñi jaamu la moo tax boo joxee sa bopp yàlla rek loo bëgg ci nit ñi ko am mais boo xañee sa bopp yàlla loo bëgg ci nit ñi mu jafe la moo tax góor gi la ak ngóor si ak buur bi góor gi bu joxee ngóor si buur bi yàlla jox ngóor si buur bi waaye góor gi bu xañee buur bi ngóor si yàlla xañ ngóor si buur bi moo tax sa doom fexeel ba jëkk koo jox yàlla mu soog laa jariñ boo ko bëggee jëkkee jariñu te jëriñul yàlla du la jariñ te mooy nangulul yàlla yàlla kenn mënu koo jariñ mais dañ koy nangul ndax leen koy jaamu jëriñu ko dara bu ko àddina bi yëpp doon mooy du wàññi ci nguuram dara bu ko àddina bi yëpp doon jaamu du wàññi du yokk ci nguuram dara waaye bëgg a nit moo tax mu andi loolu ndax ëllëg bëgg naa beral nit loxo bëgg naa beral jinne loxo ndax lu dul nit ak jinne bu ëllëgee buñ paree danaan kuunu turaaban te bu leen bëggee dugal aljanna te bëggul ko ko yee ëllëg dana lu tax mu ne lii kat maa leen sonaloon ndax maa leen joxoon julli maa leen joxoon koor maa leen joxoon asaka maa leen joxoon aj mag maa leen joxoon ak ah, doxu mbokk maa leen joxoon maa leen joxoon maa leen joxoon yooye ñu ma nanguloon nag moo tax tey mag berende leen ne leen aljanaa ngi nii udxuluhaa bi salaamin aminin yàlla nañ ci yàlla boole su ko defee kon lañ ciy dolli rek ci lim wax mooy wayjur bi nga xamante ne bëgg na doom ju baax na ko tànnal yaay ndax alquran nee na wal baladu tayyib yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi wallazi xabusat laa yaxruju illa nakida ku bi ku ñuy dugub looy góob dugub ku gerte looy déqi gerte ku ji xaaxaam nag wogasu rek boo doxee boo ñëwee yéen doo sekkat du la jariñ moo tax doom da koy tànnali yaay boo ko tànnalee yaay man caa am njaboot gu baax boo ko tànnalul yaay nag loo ca dajeel sens la waaw am na benn xaleel ci jamono Omar ibnu Xattaab dafa ñëw doteeg way juram bi mu joteeg way juram ëpp way juram doole duma way juram way jur bi ñëw ci Omar kalaame ko xam nga Omar moom dafa tàngoon buñ ko xasee wax rek day daal di appliquer yoon mu ne ana police mu ne mu ngi nii mu ne jëli leen ngeen tëjal ma ko ndax doom ji juma way jur man yar rek laa ci xam waaye Omar Alioune moo doon conseil technique am fu mu mos jaaxle rek day woo Alioune Alioune na ko teeyal laaj ko ba xam luñ jotee Omar woo jur bi woo baay woo doom ji nu ñëw taxaw jur bi taxaw baay bi taxaw mu ne doom xanaa xamoo lan mooy àq doom ci jur mu ne ko axa kay mu ne ko li tax defoo ko ko yow xanaa xamoo ne yàlla nee na jur nangam di ko xalifa lima di ko lima di ko lim di ko lim ba mu àggal mu ne ko loolu lépp nga bàyyi ko amoo looy fayee sa wayjur lu dul dóor yow tey kaso ngay dem te bala laa tijji kenn xamul kañ doom ji ne ko mën naa laa laaj comme yaa amirul mu'minin mu ne ko waaw mu ne ko dama lay laaj ndax sama jur yi aw ma àq ci moom mu ne ko ax ah akay mu ne ko yow yaay amirul mu'minin ñëpp yaa fi nekk ban àq laa am ci moom mu ne ko bi ci jëkk mooy na la yaay mu ne ko bu ñaareel bi mooy na la tudde bu rafet bu ñetteel bi mooy na jàngal bu ñeenteel bi mooy boo matee am soxna na la ko utal mu ne ko sama baay ngi laaj ko xam wax ba xam defal na ma ci benn mu ne ko bu jëkk bi nga jëkk wax mooy tànn yaay mu ne ko jigéenu doxkatu guddi la dajeel ña nga daje ca naankat naankatu naan fa ni fecce di fa naane sàngara di fa defee lu bon fa la fa la dajeeg sama yaay takk ko mu ne ko bu ñaar yi mooy musuma dal bi ma juddoo ba ni ma màgg ni sàmm la ma jàngal nu nuy sàmme jur ak nu nuy defe jur xam naa ko waaye xaw ma benn tur yàlla sàmm rek la ma jàngal waaw jàngaluma benn turi yàlla mu ne ko bu ñetteel bi nag mooy bi nga mooy mu tudde ma tur bu rafet mooy man lim ma tudde tey mooy li gën a bon ci ci li ñuy sàmm mooy juxaylu te mooy mérangaan mérangaan nag li muy def sobe fu mu romb yóbbaale ko mu ne ko kon doom amoo benn àq ci sa wayjur kon demal nga ñibbiwaat kon nag jur yi nan xam ne itam doom dañ koy tànnali yaay ku bëgg doom ju baax da ngay ut yaay ju baax yaay nag nangu moo koy jariñ dañ na ñett yi gën ci nawet moo gën ci jigéen ñu baal ñu foofu la ñuy tëje ndax amuñu fi kàddu sax waruñu woon a wax ñett yi gën ci nawet moo gën ci jigéen ñu ne sax nangu yaatu sax nangu yaatu nawet boo jiyee saxul nooy def dem loon jigéen li nu bëgg ci sëyam mooy mu sax fa xam ne bu fa lu metti nekkee itam lu naqari lu lu metti nekkee itam lu neex dana ñëw te nag loo fa liggéeyul du la fa fekk ëllëg kon sax fa te muñ soo muñee xam ne ëllëg yàlla dana la fay lu la noppal waaw moom la wax ne nangug jigéen mooy wërsëgu doom waaw mu nag ban sax ba jees mooy nangu gis nga jigéen lu mu manti def te nanguwul musibat am na nangu nag bokkul ak sonn da nga gis jigéen gu dàq sonn ci kër gi foo ko fekk ma ngay tëste si ma ngay fóot ma ngay bale ma ngay ñaq ma nga soli sagar te la muy def taxul mu nangu ndax dafay ànd ak wax ak moolu te jigéen kat bu fekkee lu mu la defal wax la ko amatul njariñ ñu baal ni dañ ne jigéen xamul ñett xamul martaba borom këram xamul mbaaxu jëm xamul bonuk doomam nee na doomam lu mu bon bon bon boo waxee mu ne day xale rek nee na wujjam lu mu baax baax baax boo ko waxee mu ne ko du jukkoom nee na borom këram lu mu manti nekk nay faraani asamaan ak di ñëw boo dana ko joxar bi wala boo mu saasax mu won ko xamuñu ko kon nangug jullit nangug jigéen mooy tax mu am njaboot gu barkeel ba tees nag mooy yaatu gis nga tool bi bu saxee nangu te yaatuwul du faj soxla moo tax jigéen dafa war a yaatu bu ëllëgee njabootam jariñ askanam njabootam jariñ réewam njabootam jariñ diine ji ndax loolu la ñuy dee jigéen su ko defee kon nag ñu tànnal sunuy doom yi ay wayjur mu ngi gudd te wax ji amul njariñ waaye kii dafa yéene rek ñu yëkkati ci kàddu ñu xam ne buñ ko gàntoo mu ñuru leneen ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balaaq ñëpp di ñaan yal nañ fi dajawaat déwén ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak barka suñu mag ñu baax ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullah